إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit suñu xutbab tey bi day fàttali fan yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujjee dund teqali ko ca ak xeet bi lu jiitu suñu borom yàlla subhanahu wa taala day xamaloon na ko ni mu yàgg ak mu yéex bis dana mas a ñëw yow nga faatu te faatu googu it du ci yow rek lay yem ndax man kat musuma bind benn doomu aadama bàyyi ko mu dund ba faw bépp bakkan bu mos dund danga mas a mos dee doonte ne diggante bi nag danaa leen ci nattoo ay xéewal danaa leen ci nattoo ay lu metti loolu lépp di ay fitna waaye lu mu yàgg-yàgg ci man ngeen di dellu si mboola seen loolee yonent bi yàgg na ko jàngal ay saxaabaam gëmoon ko saxaaba yee gëm ko allahuma lu dul doomu aadama bi la ngay dégg ak la ngay gis bokkul looloo tax ba rasul sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ba mu nammee jël ko da ko jëkk a roof li nga xam ne mooy feebar feebar boobi loo am na lu nga xam ne moo ko jiitu woon mooy keroog ba mu demee aji ji makka daje fa ak sahaaba ya ñu jóge mboole mi gox ci lislaam mu ne leen déglu leen bu baax li ma leen di wax mën na am dootuma dajeeg yéen gannaaw atum ren mi yàlla wàcc ci moom aaya ya nga xam ne moo ko jëkk a tàgge te mooy aaya yi wane ne diine jii day matal naa ko samay xéewal mottali naa ko ci yéen nii laa gërëme ngeen jaamoo ma ko yàlla ci lislaam koo xam ne dañ ko yónni lañ ko yónni woon lépp mat dara desu fa lu dul daldi ñibbi loolu nekk la nga xam ne nii màndarga bu jëkk la woon amma bi mu ñëwee Madina dem nañ ba ba nga xamee ne dañ ne juróom-ñeenti fan moo tee mu faatu suñu boroom ca la wàcce aaya bu mujjoon ci téere borom bi aaya ba lan lay wax mooy ay yéen nit ñi ragal leen bis bi nga xam ne dañ leen di delloo ci seen boroom képp ci yéen lam liggéeyoon ñu fay ko ko ca kenn du leen tooñ loole da ngay gis ñuy topp tafsir bi xam nañ ne aaya yooyu bokk na ci liñ mujj tafsir àllarba bi passé loolu it nekk beneen mbir boo xamee ni nii maadaama suñu yeneen ci nit ñi la bokk bis dana mës a ñëw mu dellu ci boroomam loolu moo tax ba ba ko yàlla roofee feebar boobi bis wax na sahaaba yi nañ ko yóbbu ca ko minbar ba fekk dox sax tële na ko ñu lëngu ko ba mu ñëw toog ci kaw minbar bi bokk na xutba bu gudd bu mu leen fa xutba ne leen ay yéen nit ñi xam leen sama daje ak yéen day mooy ci sama déeg ba déeg boobu nga xam ne maa ngi mel ne ko jàkkaarloog moom nii loolu lim ñuy jëkk a jàngal mooy bari na ay pas-pas yoo xam ne ay doomu aadama dañ koy gëm naan daje nañu ak yonent bi place sangam yonent bi ziar leen place sangam bal am na ñuy ne sax yonent bi dellusiwaat na ba judduwaat ba am njaboot loolee mbokk seeni wax la waaye du waxi yàlla du waxi yonenti yàlla ba nee woon na su ma demee ca diig ba lay daje ak yéen mu ne ay yéen nit ñi xam leen ragaluma ci yéen day ak ñàkk waaye li ma ragal yàlla ubbi ci yéen àdduna ngeen xëccoo àdduna boobee comme ña leen fi jiitu woon nañ ko doon xëccoo su ko defee àdduna boobee alak leen comme na mu allégué woon ñu leen fi jiitu woon loolu it mbokk julit ku nekk ci ñun war a bàyyi xel la nga xam ne moom la ñuy dabu ca àdduna ca alal ja ca pal ya ca daraja ya ngalla waaye lépp loo cay yóotu na doon lu lay jegeel sa boroom waaye lépp lu lay soril sa boroom alkaange rek la lay jural àdduna ak alaxira mbokk bu ñu delloo ci bis yi mujj ci bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dante fekk ay njàngale yu mu tegale doonte ne depuis ko yàlla yónni ba buñ fiy jógee di ñaar fukkaat ak ñett sallallahu alayhi wa sallam dundeem gépp jàngale la jëfam yépp jàngale la waxam yépp jàngale la bal lu mu fekkee ca weddiwu ko sax jàngale la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahuma lu dul ba ñu demee ba feebaram ba ñëw gën naa nag bàyyiloo nit ñi xel ndax doomu aadama bi bokk na la gën a am solo la ngay dégg ci nit mooy la nga xam ne moom nga mujj jële ci moom looloo tax keroog ca bisub alxemes ba alxemes gi mujj dund alxames boobu nga xam ne anas ibnu malik nga xam ne mooy xaadimu rasul moo nekkoon ak yonent bi fukki at ca këram nga ba lépp mu nekk madina anas heure bu mosaan fàttali ko ba ne yowmul xamis bisu alxames day jooy ba teqali ko sagoom biñ ko laajee mu ne mooy bis bi nga xam ne ca lañ yëg nañ ne yonent bi alayhi salaam feebar na dëgg-dëgg feebar yonent boobu nga xam ne moo leen gënaloon seen ndey ak seen bàyyi gën leen seen bopp ak seen bakkan loolee mbokk la ñu gis yonent boobee sallallahu alayhi wa sallam keroog dem na ca jàkka ja julli fa julli gëm fa mujj julli ci jiite muy la nga xam ne nii mooy waxtu timis kii di soxna suñu wax umu fadl bintul xaaris mu ne yonent bi alayhi salaam day timis gëm ñi mujj jiite ma nga fa jàng la nga xam ne mooy suuratul mursalaat loo xam ne tey imaam yu bëri buñ ko jàngoon timis ñu bëri dañuy jàpp ne kii daa ëppal waaye malgré feebar ba ko daloon loolu la leen mujj jiite sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba nga xamee ni ni dem nañ ba ñetti fan des ca faatoom ga bokk na loo xam ne dénkoon na ko sahaaba ya ca mooy ngalawaay day leen rafet njoortu ci seen borom mooy suñu borom mooy borom yërmaande mooy borom jéggal ab julit day boole góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye góorgóorlu fu mu mën a toll te rafet njort ci yàlla ne yàlla subhanahu wa taala dana ko jagleel njéggal ak yërmande yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na loo xam ne wax na ko ca feebaram ba suñu yaay Aïcha nettali ko ak leneen i sahaaba mooy yal na yàlla yëbb yal na yàlla rëbb yahud ak nasaraan yi dañoo jël seen bàmmeelu yonent yi def leen ay jàkka looloo tax ba mbokk julit bàmmeelu yonent ba kenn génnewu ko woon ngiree bañ ñu def ko jàkka fam faatoo rek lañ ko suul ci néeg yaay Aïcha loolu muy wane ne ngallawaayu mbokk bàmmeelu yonent ak keneen ku dul yonent du jàkka jàkka mooy fa ñuy jaamoo yàlla looloo tax képp ko dem ci ab bàmmeel di ñaan borom bàmmeel ba wala di rukkoo ca ca bàmmeel ba wala di sujuut ca bàmmeel ba wala di wër bàmmeel ba yaa ngi nuru nuru lu yahudi ak nasaraan yi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la bañoon yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bokk na ba mu nekkee ca lal ba nga xam ne ca la faatoo loo xam ne mu doon na ko dénk sahaaba ya ay waay maa ngi leen di dénk julli maa ngi leen di dénk julli maa ngi leen di dénk ngeen rafetal te la nga xam ne mooy seen jaam yi loolu dañul di ko wax ba làmmiñam ba damm ci loolu loolu it mbokk jullit muy wane ne war nañoo góorgóorlu taxaw ci julli waaye dénkaane ko naka yonent bi alayhi salaam doon dénkaane ña ca jiitu mooy njaboot bi ñu yàlla booleel ngalla waaye nañuy taxaw di leen dénk ñuy julli waxtu yu juróom gannaaw ba it képp koo xam ne yilif nga ko na doon jaam la mbindaan la employé la kum mën a doon ngalla waaye rafetalal njorti rafetalal jëflante ci moom ca xam ne kilifteef gi nga am ci moom moom la yàlla am ci yow loo rafetal jëm ci moom yàlla rafetal lu raw loolu ci yow waaye ñaawal ga nga jëm ci moom day tax yàlla ñaawal ci yow bu ñu demee ba bis yu mujj ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent boobee lii di anas ibnu malik di nettali nee nañu génn na ca bisu altine bam faatoo fekk presque toog na ñetti fan yoo xam ne abubakar mooy jiita mbooloo mi bañ demee ca jullit fajar ga mu daal di yëkkati rideau néeg yaay Aïcha ndax yaay Aïcha néegam daa sësoon ca jàkka ji bu yonent bi yëkkati rideau bi day jàkkaarloog mbooloo mi fekk ñi ngi julli loolee saxaaba yi am riir mu dox seen diggante ba Aboubacar gestu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di arrière jàpp na yonent bi day génn pour jiite mbooloo mi yonent bi junj ko na ko continuer leen julli gi continuer leen julli gi keroog la yonent bi mujj jàkkaarloog sahabatul kiram loolu di bind bu màgg muy wane ne fan la yonent bi tàggoog sahaaba yi mooy jamono biñ taxawee di julli keroog la mujj jàkkaarloo ak ñoom la mujj wax ak ñoom mooy ju junj leen continuer leen seenug julli loolu it moo tax ba nga la waay yow jullit xamal ne sa cër ci diine ji sa cër ci yàlla mi ngi toll ne cër bi nga am ci julli nañu koy góorgóorlu di ko waajal di ko taxawu di ca toroxlu di ko dëppale ak la nga xam ne mooy sunna mooy la gën a màgg ci loo xam ne dañuy texeel yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam joxe ne leçon ba ay maamam joxe woon ca mooy ñoom ibrahim ak yanqub ca mooy seen njaboot ñu dénk leen la nga xam ne mooy njub bala ñu fee jóge woo na ka nga xam ne mooy sëtam yu tedd yi xasan ak xuseynu ñu nekk ay xale yu ndaw mu foon leen ñaan mbooloo mi ne ñii nañu rafetal jëm ci ñoom ca loolu it muy wane ni yow jullit képp koo xamee ni nii kii kat mbokk la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca nañuy jaamoo yàlla ñu bëgg leen sopp leen rafetal jëm ci ñoom waaye noonu la woowee ay soxnaam mu daal di leen di woor delloo leen ci yàlla na am soxna yooyu nga xam ne alxuraan wàcc na ci ñoom yàlla jàjj na leen waaye nag bëggoon na la muy teqalikoo ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam mooy delloo leen ci yàlla jalla waala mi wane it ne yow ngalla waay yow yàlla yow mi yàlla wërsëgal ak njaboot njaboot googee xamal ni la gën la nga leen di bàyyee du kër yu taaru oto yu taaroo waaye la gën la nga leen di bàyyee mooy bàyyee leen ragal yàlla bàyyee leen dénk leen seen borom jalla waala looloo tax suñu borom mu ne am kuntum shuhadaa is xadara yaquba al mawt is qaala li banihi ma taabuduuna min baadi ila axiri al aaya yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañu yaquba alayhi salaam dajale woon na njabootam moo lu ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ne ko du ñu jaamu lu dul sa borom ak borom isxaq ak yanqu ak ak ismail loolin mbokk njaboot gi war nañ fu ñu toll di leen dénk yàlla waaye rawatina buñ demee ba wóolootuñu la nga xam ne suñu bopp yonent boobee noonu la nekk ca feebaram ba sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne mooy sukuraat ba tar ci moom lool ndax xam ngeen ne mbokk suñu borom yàlla heure buy wàcce nattu ñaara tax mooy day far say bakkaar wala di yëkkati say daraja amma yonent boobu bëggoon na yëkkati ay darajaam ba ba minute yi muy mujj def ci kaw suuf looloo tax sukuraatam ba taroon lool ñu indil ko la nga xam ne nii mooy ab këll mu cay jël di ca teg dugal loxom bu tedd ba di raay ci kanamam ga di wax laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat ay waaye mi ngi tudd yàlla waaye di wax deeday ak mandi ca da caa nekk mbokk sakaratul mawti métti ga métti moo tax ña ca toll mënuñu koo nettali waaye yonent ma yàlla bàyyi woon ak xelam xamal nañu ne dara gunta tar sakaratul mawt loolu tax jullit di war a góorgóorlu di def lu baax di ñaan yàlla ngiree yàlla woyefal ko ci moom yal na yàlla woyefal ci ñun sakaratul mawt bokk na sallallahu alayhi wa sallam mooy la nga xamee ne nii moom la mujjoon di wax mooy su ne ay Aïcha nettali ko mu ne ma nga yëkkati loxom ba di wax naan fii rafiqil ala fii rafiqil ala te mooy yàlla yal na nga ko boole ak àndandoo yu kawe ya te mooy mbokk yonentam yi ak siddiquuna ak saalixuun sallallahu alayhi wa sallam mbokk noonu la demee wujjee boroomam ci bisu altine ba muy wujje boroomam mi ngi tolloon ci juróom-benn fukki at ak ñett ci atu weer wi boo ko xoolee day nekk juróom-benn fukki at ak benn daanaka yu teg ay trois mois ca at yi ngeen miin muy ati solaire bi loolu it mbokk di la bàyyiloo xel yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam daana wax sama dundu xeet bi day yàlla nga ko tënk ci diggante juróom benn fukki at ak juróom ñaar fukki at nee na lu néew ci sama xeet ñooy romb loolu loolu muy wane ne yow julit bu la yàlla dundalee ba nga am juróom benn fukki at takkal say bagaas lenn ci àdduna wurutoo nekk di la itteel bay yàq sa jaamu yàlla xamal ne la nga xam ne moo la dese mooy ay bunis waaye yegg nga fa yonent bi alayhi salatu wasalaam yeggoon yonent bi alayhi salatu wasalaam wax nañu ko ci hadis nee na yàlla day deseelul benn jaam gànt ba mu ko dundalee ba mu am juróom benn fukki at amul looy wax naan yàlla suba yëgoon ak nangam nangam loolee di mbir boo xam ne dañ cee war a bàyyi xel waaye mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na loolee ba nga xamee ni ni am na sahaaba yooyu nga xam ne ñoo gënoon ci xeet bi gën caa dëgër fit gën caa gëm yàlla sahaaba yooyu daanaka ñoom ñépp teqalikoo nañu seen sago ak i jooy ba loolee da ngay gis kii nga xam ne nii mooy abu xusayli mi ngi nettali ne man day dama ñëw madina mel ni riir bu may dégg comme mbooloo mi biñ jógee arafat ma ne waaw lu xew ñu ne ma yonent bi alei salatu wasalaam dafa faatu amul benn kër ci madina lu dul ña nga xam ne ñu ngi jooy anas ibne malik radiallahu anhu moom lay nettali ne mu ne wallahi ma raaytu yowman qad kaana ahsanu wala adwau min yowmin daxala fi daxala alayna fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xawma ban gis moo gën a neex ban gis moo gën a taaru keroog bi yonent bi jógee makka ñëw daal di dugg si madina waaye mu ne wa ma raaytu yowman kaana aqbahu wala azlamu min yowmin maata fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam musuma fekk ci madina bis boo xam ne gën naa nekk tiis bis bu gën a nekk lëndëm bis bi nga xamee ne nii waa madina yëg nañ ne yonent bi alayhi salaam faatu na loolu mooy musiba bi gën a rëy boo xamee ne nii sahaaba yi dund nañ ko ba lu ëpp ci ñoom buñ daan jaalente ci ku doomam dee ci koo xam ne nii ay natt da koo dal dañ naan ko tey fàttalikul keroog bi ñuy teqlu ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana yéen ñi fekke woon xutba bi passé benn soxna ci bani Najjar ban dajeeg moom ci xaswatu Uhud ne ko sa baay faatu na sa doom faatu na sa borom kër faatu na mu ne ana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jàkkaarloog yonent bi dara ko ko mucc nga amul bépp natt bu mu mën a doon lu woyof la xoolal soxna soosee keroog bañ ko waxee na ko yonent bi alayhi salaam faatu na naka la def loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax loolu nag mbokk mi ngi amoon kañ mooy mi nga amoon bis bi ñuy jàpp mooy bisu gàmmo borom xam-xam yi wuute wuñ ci loolu amma kañ la yonent bi juddu loolu wax nañ ci fukki wax yu nangam waaye li nga xam ne kenn wuute wu ci mooy bisu gàmmo ca la faatu woon. benn laaj rek laa leen di laaj képp ci yéen bu demee këram mu xalaat ci ma mbokk sahabatul kiram keroog bi leen yonent bi bàyyee ak la nga xamee ni nii mooy natt boobu nga xam ne moo leen dal. ndax jàpp ngeen ne ci déwén sa anniversaire ba daje nañu ne dañuy togg seeni cere dañuy noos ngir màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu xel mën na nangu loolu la wallahi mbokk julit nañu xam ne sahabatul kiram demoon nañ ba teqalikoo ak seen xel gannaaw yàlla yàlla mi continué mission moo indi kenn ki nga xam ne mooy aboubacarin sadiq ba nga xamee ne nii am na ku ci bind sax ab téere tuddee ko wa jaa aboubacar ba aboubacar radiallahu anhu ñëwee daa di dugg ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam daa di koy fóon daa di ko ne wallahi yàlla du daje la ci yow ñaari dee amma dee ga nga waroon a dee moom dee nga ko loo xam ne lu bari ci ay sénégalais gëmuñu ko ñu bari ci sénégalais gëm nañ yonent bi dee na ñaari yoon dee na ca makka dee na ci da dee na madina dee na fii ci dakar la wallahi aboubacar na ko wallahi yàlla doon la dajaleel ñaari dee amma dee ba yàlla tuddoon ci yow moom jàng ñu jàngoon ko ci téere bi dee nga ko génn dem ca min baro yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne toog leen mbooloo mi yëpp toog mu wax leen waxam jooju nga xam ne mooy man kaana yabudu muhammadan fa inna muhammad qad maat képp koo xam ne muhammad nga doon jaamu te wallahi xam na ne sahaaba yi sori nañ jaamu muhammad képp ko doon jaamu muhammad na xam ne muhammad dee na amma ku doon jaamu yàlla fa inna allaha xayyun laa yamut daal di jàng aay ba borom bi di wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum faman yanqalibu ala aqibayhi falan yudurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin suñu borom yàlla mu ne xam leen ne muhammad du lenn lu dul ab yonent ay yonent jiite woon nañ ko fi ndax bu dee da ngeen di dellu gannaaw ku dellu gannaaw du lor lu dul boppam amma ko sax ca lam nekkoon day yàlla koy fay ñee sant la mbokk sahabatul kiram nii lañu xamee woon na jaamuwuñu muhammad yàlla lañ doon jaamu waaye nag ci roy muhammad lañ doon jaamoo yàlla amul woon benn jaamu yàlla boo xamee ñi ni dañ ko daan def lu dul yenent boobu moo ko jàngale looloo tax ndax ñoom daawuñu gàmmo ah kay sahaaba yi daanañ gàmmo xanaa du gàmmo muy màggal yenent bi sallallahu alayhi wasallam ah kay sahaaba yi dañ daan gàmmo waaye naka lañ daan gàmmoo naka lañ daan gàmmoo mooy nañ ko jàngee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nam daan gàmmoo mooy mooy xam ne ne yàlla da ko yónnoon mu nekk rasulullah indi woon benn mission mission boobu moo ko jëkk a gëm amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbi moo jëkk a gëm mission ba moo gënoon a tënku ci mission bi daana walla wallahi maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a topp yàlla lu yàlla digle moo ca jiitu lu yàlla tere moo ca moo ko jëkk a bàyyi sahabatul kiram noonu lañ ko doon màggale ca mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem yonent boobu waxoon na leen bañ ko laajee na ko waaw yu mu yàlla yónni bari nañ ngay gis di woor bisu altine mu ne waaw ca la yàlla dogaloon ca la judd ca la yàlla dogaloon wàcc ci man alquran muy wor bi sàjjuma muy wor bi saltini noonu moo tax sahabatul kiram ñoom it dañ daan roy yonent boobu ci wóor bi saltini mbokk sahaaba yi nii lañ daan gàmmoo mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem gëm ak gëm lépp loo xam ne wax na leen ko bu bisu altine ñu woor ngir roy yonent bi ngir sant yàlla ci yàlla mi nga xam ne baax na leen ñu bokk ci xeetam ngir sant yàlla mi nga xam ne moo wàcce alquran bi nga xam ne mooy texe tax ñu texe àdduna ak alaxira nii la yonent bi doon gàmmoo nii la ay sahaba doon gàmmoo léegi nag yow borom xel yow yaay mottali la la des ngallaawaay mbokk nañu xam ne suñu borom subhanahu wa taala suñu diine ji nee na lu ci dara amul lenn loo xam ne ay jullit war nañ caa daje mu leen di jural ngërëmal yàlla lu dul yonent bi ak i sahabaam ñoo ca jiitu lépp loo xam ne kenn mënu la lay fenn foo xam ne yonent bi ak sahabaam mas nañoo daje di ko def loolee képp ku ko defit yaa ngi ko def ca la nga xam ne moom mooy sa xalaatu bopp su ko defee li nga xam ne moom la ñuy ñaan borom bi subhanahu wa taala yonent boobu day ñëw na def am mission ba yàlla gërëm ko daal di koy yóbbu mission boobu mu nekkoon daana wax ne képp ku ma topp day àddina la jëm képp ku ma mooy sawara la jëm man ata ani daxala al janna wa man asani faqad aba li ñuy ñaan yàlla day mooy ñun yal nañu yàlla dëppale boo la ñu ci ñakay jaamu waaye nag buñ ko jaamoo lu dul naka yonent bi ak i sahaabam doon jaamoo lii la ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko allahuma mbokk julit bala ñu jeexal suñu xutba bokk na benn nattu bu ñu yàlla nattoo woon ci ajjuma ji passé ñu fiy tudd benn mbokk bu ñuy wax yusuf qardawi am na lu ñu yóbbu woon ci moom ay téeram yu bëri yuñ traduire en français lu bëri ci occidentaux yi en mu waar leen ci l'islam waaye gannaaw ba ñuy dégloo ulama wu ya nga xam ne ñooy borom xam-xami ahlu sunna témoignage ya nga xam ne def nañ ko ci moom gis nañ ne njuumtale bu rëy ñu taxaw ci ab minbar di tudd ko mel noonu ndaw ñu bëri jàpp ne loolee ab référence la nañu xam ne wax jooju yo waxoon waxtu waxu njuumte la képp ku dégg ne imam xasan mas na caa waxit na wax wallahi imam xasan dellu na gannaaw ci loolu moom ci boppam dellu na ca boroomam allahuma la nga xam ne moom la defoon mi ngi fi ba léegi am na ca loo xam ne nii mënees na caa jëriñoo waaye am ci yu bëri yoo xamee ne nii dafa nekk ay danger yu grave loo xamee ni nii kon wuruñu ko woon a nekk di ko jël ay référence li ñuy ñaan yàlla jalla wa ala kenn mënta mucc ci njuumte waaye heure bu ñu juumee yàlla nañ ko yàlla xamal te xamal ñu fa dëgg ga nekk war sëgal ñuy bàyyi njuumte di topp dëgg allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab an-nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaq sabaquna bil iman الرحمن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين